di boroom dalaa'ilul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaat yi ci Facebook bi xam naa ñu ngi leen di eh, jéggalu ci xaarandi bi ngeen ñu xaarandi waaye tam comme niñ koy fas yéene di defee rek say wari ji kilifa gi waaye tam fexe mu waxtaan ci li nga xam ne moom mooy actualité ñëw ñu daal leen koy eh, jagleel waxtaan ak moom mu jox ñu ci ay conseil waaye tam mu jox ñu ci ay orientation yu yu yaatu ah, bokk na ci li nga xam ne moom moo xew fële ca Léona Niassène mu nekk loo xam ne lu ñu war a waxtaane la waaye tam coow li nga xam ne ñu ngi koy dégg ci diggante ah, ah, Seydi Mouhamed mbay ak vidéo booboo yeneen ak yeneen daañ ci ñëw incha allah waaye lu ci mën a am rek dañ koy daal di bàyyi mu nuyoo ñu daal di eh, saafonte su ko defee ñu daal di àggale waxtaan bi la sant bu baax a baax aouzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfa illa billah xaw na ko yaa muhin wa bika nasahin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina muhammadin adadu sufufil malaikati wa tasbihim wa tahdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yawma xalas dunya ila yawmil xiyaama ñu ngi nuyu mbokk internet yi di leen ziar kenn ku nekk di la jox loo fa nga nekk di nuyu waa diaspora bi. di leen wax ahlan wa sahlan. mu am benn fee boo xam ne euh, xew na fa la ca lew nañu seen ki nga xam ne euh, doom la ci xalifa bi génn daal di def déclaration te xamal ne baay bi da koy wax ne euh, Ousmane Sonko bu mu ñëw ca ziar bi nga xam ne moom la bëgg a def ca lew nañu seen loolu bi nga ko déggee lan la la def. waaw ku xam Euh, lewoon na Niassène xam njabootu maam Khalifa euh, da leen xam ci ñu nekk ay aabit ñu nangoo jaamu yàlla xam leen ci ñu nekk ñu maandu euh, ñoo xam ne seen cosaan ba ni tey diine la ñoo xam ne maanaam politik jiitalu leen naka jekk diine daal lañ leen xamee tu diine mhm. nitu alquran nitu tarixa mhm. muy tarixa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiallahu anhu mhm. euh, ñooñu nga xam ne euh, xaalis fuqul seen bët ndax euh, ki xam ne kii am kii am lislaam ñàkkul dara kon bu ñu fa déggee yooyu dañuy xam ne rek ay lay doon wala am ñenn ñoo xam ne ci ñoom féeteerul nañ Euh, doxalee noonu waaye ku xam maam xalifa ak njabootam. Mhm. ndax man am na ñu ma ci jaxasool. Mhm. Euh, kon xam naa xam naa seen jikko. Mhm. ñu doylu lañ. ñu maanu lañ. ñu bëgg doomu aadama lañ. ñu jub lañ. loolu bi ma ko déggee euh, ci saa si rek xam naa ne. loolu nekkul war a mun a am. Mm, waaw ndax dafa am système bu ñu diaboliser président Ousmane Sonko ak. opposition bi. nga xam ne ñoom jaral na leen ñoom ñi nga xam ne ñoo nguur mhm. lu ñu mën def pour téye seen nguur mhm. wala pour saboter ñi ñi ñuy opposé mhm. dañ koy def nga xam ne senegal daal kenn ku nekk yaa ngi toog di seetaan rek ndax euh, am la naqari ak ñàkk ci mën dara waaye lépp loo gis rek bu newul dëgg nekk ci nekk bëgg ko def dëgg dëgg moom du mës a nekk lu dul ay fen Euh, kii nen euh, fen lu mhm. mës a nekk lu fen dëgg tam lu mës a nekk lu dëgg mhm. mais est-ce que jàppoo aussi tamit que ne euh, këru ci kër diine yi war nañ xoolaat seen bopp parce que suñ demee ba ci ak njaboot yi wala ay jegeñaale xalifa yi ñooy génne di leen waxal loo xam ne ah, dara amu ci pour diaboliser ñenn homme politique yi est-ce que tamit loolu waruñu ko xoolaat parce que quoi qu'on puisse nañ gën a ñaaw njortu que ne ah, seeni adversaire politique ñoo leen koy defloo est-ce que tamit ah, loolu duy dem ba yablu kër diine ba waaw c'est que kër goo dem day am lu ñu naan maram maram biraan koo xam ne. Mhm. Euh, mooy doon mandaari kër gi. Mhm. koo xam ne euh, mhm. du ni muy mel du neex waa waa waa kër ga. kër boo foo dem ci kër kilifa rek cité religieuse da nga ko fay fekk. ndax am na ñoo xam ne moom euh, dañu bëgg a teraanga te nangu ñoo tedd. dañu bëgg a tedd te nangu ñu liggéey bu defee ñu mel noonu jën leen dafay yomb. Mhm. foo dem nag ci ci ci kër diine da nga koy kër kilifa da nga ko fekk mhm. waaye ñëpp si ñoom moom ñu defar la doon ñu baax ñu jub mhm. ñu sell ñu maandu ñu ragal yàlla ndax kër goo xam ne ne bi nga juddee bi ngay xàmmee ci alxuraan lañ la lañ la euh, ngay xàmmee ci xam lañ la yar bi ngay ci ay teggin lañ la yar ku mel noonu du mën a mel noo xam ne euh, dañ koy jàmm wala ñu koy ŋàññ waaye nag foo dem rek la daloon yonent yàlla noox ci doomam jooju nga xam ne mhm. bi mu wootee wooteem boobu ñu ko topp topp ko ñu bañ lànk mhm. am bës euh, yàlla indi euh, mënd ma ngir faagaagal ñi nga xam dañoo weddi moom bi yonentu yàlla noox alayhi salaam mhm. bëggee mu bokk ci ñu yëg ci gaal gi al euh, yàlla ko ne laysa semmine ahlika kon da gis ne am na ñoo xam ne ñoo juddoo ci kër kilifa waaye bokkuñu fa waaw ndax doxalin wu ñaaw ak euh, jikko ju ñaaw ak yu mel noonu lay mais comme euh, ci question bi ma la duggoon léegi yow jàpp nga ni lan moo war a nekk solution bi ak lan moo war a nekk taxawaayu ñi nga xam ne ñoom ñooy jege ñaalu xalifa yi. waa xam nga ki yor làmmiñam wala médiatiser wala wax. Mhm. pour saboter. Mhm. loolu. Euh, ñoom ni ñu ko def tey muy waa kër maam xalifa mhm. ni ñu def mooy ak mat ndax ñoom. Mhm. wax nañ ñëpp dégg. Mhm. ci làmmiñu parce que ñoom génnaan nañ xam le ne wax yooyu dara amu ci. waaw ci làmmiñu suñu arabi ñaas. daan ne ñun fii ci lewoona ñëpp lañ jabootee euh, opposition ak pouvoir ci yam maam maam Khalifa ñëpp la jabootee fii këru ñëpp la. loolu nekkul sax lu ñu jottale maanaam loo xam ne da koo wax ñëpp dégg ko àdduna bi Sénégal gépp déggandoo ko mhm. àdduna bi déggandoo ko mhm. kon loolu ndam la ci Ousmane Sonko mhm. ndam la ci euh, waa waa Léona ndax tëddee nañ njaaxaanaay waaw ñu ñu nemmeeku woon comme fee boobu aussi tamit Touba ah. ah ñoom nemmeeku woon nañ fa fan yi passé rek après ñu génnaat euh, démentir nekkul ne kay instant bi euh, kër kilifa diine yi dañ leen commencé di jënd parce que tamit loolu it war nañ ci wax euh, xam est-ce que tamit ci kër du ma ne kër kilifa diine yi est-ce que commencé wuñ leen di jënd sax mais dama ne euh, ñenn ci ñi nga xam ne ay jege jegeñaale xalifa yi est-ce que newuñu commencé di jënd seen ngor ci côté boobu parce que tamit euh, lu toll ne xalifa nga waxal ko lu rëy loo xam ne day wër Sénégal yii ni yaakaar naa ne foofu tamit war nañ fi taxaw defaat fi taxaw seetlu bu baax a baax waaw daf ci am loo xam ne ku ko waxal kilifa Euh, bokk bokk maanaam bokk ci ndab li mooy tax nga mën see dugal sa loxo. Mhm. Euh, loolu nag du ñàkk ci kër kilifa yi comme ni waxee sànq. Mhm. Euh, kilifa dañoo jabootee ñëpp. Mhm. jabootee ñu jub ñu maanu am ndam ñeneen ñoo xam ne itam du ñu tegu ci fa sëñ bi bëgg. ku mel noonu nag bu meloon na mu war a mel du du du wax du wax loo xam ne. du dëgg. wax joo xam ne ay lu safaanu dëgg lay doon mhm. wax juñ la ci ju ñuy xeebee nit mhm. wax joo xam ne ay soos la mhm. euh, waaye rek dangay gis ne politique daal ak ku xas dugg ci politique te àdduna rek ak euh, xaalis tax laa dugg buñ la jëndee rek am la mais mais aussi tamit faaw ñu def taxaw seetlu tamit ci ki nga xam ne moom mooy waral wax ji chaque fois parce que Ousmane Sonko aussi tamit gis nañ ne sikk bi dafa bëri sikk maanaam sikkal bi dafa bëri laa bëgg a wax maanaam fi ñu koy sikkee dafa bëree torop torop torop torop ñu déggoon fan yi sax nga ñuy wax naan Ousmane Sonko dafay taxawee taxawaayu xeex li nga xam ne mooy taxawaayu mag ñi loolu moom est-ce que tey amoo message boo xam ne war nga ko mën jox maanaam ci taxawaayam loolu moom bu buñ ko waxoon feneen fu dul Sénégal. Mhm. mën naa jàll ndax wala ñu wax ko ci beneen période bu dul période bi nga xam ne nit ñi léegi. Mhm. xam nañu yeewu nañu. Mhm. nalawatuñu. muy euh, ñoo ngi ci àdduna boo xam ne léegi kenn mënatul diaboliser benn xeetu jabolisation bi ba nit ñi gëm ko. li ñu defoon Mamadou Dia ak euh, Cheikh Anta Diop. mun ñu ko def Ousmane Sonko ndax. Euh, Ousmane Sonko. Mhm. li muy def leer na. Mhm. am na sëriñ. Mhm. day dem ci kër kilifa yi. te am nay mbokk neexutu jëw. bu yàlla dogaloon sax mu nekk koo xam ne am doxoon la wala mu néewi mbokk kon boobaa. ñu mën ko boddi. Euh, te euh, daf ci am loo xam ne. du tey. bi ñu ko dalee diaboliser bi mu commencé lañ njëkk wax ne salafi la mhm. waxaab bi la nangam nangam mhm. euh, waaye mhm. euh, jàllul te boobu temps sax jël woon position ndax boobu ne fépp laa bokk la waxoon boobu sax jëlul position comme ni mu jëlee position léegi euh, nekk am sëriñ mu nekk Daaru Moxti en même temps nekk tam koo xam ne ku jege sëñ ku ku kii heure su demee Touba dañ koy gis ci ron seen Moussa euh, Cheikh Saliou. Uh-huh. Euh, loolu yëpp ay position yi lu mu jël. Uh-huh. te uh-huh. biñ koy tàmbalee jamono ji boobu sax amul woon kii boobu te teewul. nit ñi bëggoon nañ ko. ba ginnaaw bi ah, kii euh, mars 2001. Mhm. bi mu paasee lañ ko la ko ñu commencé gis. Mhm. mu am position nekk murit euh, kii. mais est-ce que tamit xam nga euh, Sénégal tamit dafa doy waar parce que Sonko boo xoolee ci ay discours am bu ñu arriéré tuuti ah, dafa nekkoon discours yoo xam ne tey moo tax nit ñi xalaatee ko tamit fu mu taxawee parce que bu njëkk Sonko au vrai dire daan wat bab bi. tubay cëkk la daan sol euh, def euh, sikki mi maanaam euh, kanamu ibaadu daal lañ doon gis ci ñoom est-ce que aussi tamit moom it wanewut lu tax nit ñi amuñu ci moom confiance wala lu ci mel ne par exemple moom est-ce que poussé wul les Sénégalais que ñoom ñu jàppee ne foofu la bokk gis na ne bu fa jaaree du am day wëri mbubboo murit gi ba taxaw doog cee génn loolu it ay jàngat la yoo xam ne il faut aussi tamit ñu am ci ay version yoo xam ne yow yaa ñu koy jox waaw xam nga tey da gis ci kër kilifa danañ solo noo xam ne sax dangay yaakaar ne ay ibaadu lañ mhm. te pourtant dañu nekk murid saadix wala ñu nekk tijaan ak xan mhm. wala ñu nekk xaadir mhm. euh, waaye ni islaam euh, jàngalee nit ki solo ko bu ko soloo rek euh, daanaka ibaadu lay gën a nuróol ci leen lu ñu koy nuróoleel ndax diine mag moom moom sifat sifa boobu la am boo xoolee photo Seydina Seydi ak photo Sëñ seen ay yére. photo yi boo gisee day mel ni ni ibaadu yu solo lañ doon solo. dañuy gis photo kii tubéy ji day mel lu xawa a eh, gàtt. waaye loolu yëpp daal. Eh, jullit daal. dañu maanaam nit ki moo xam. Eh, foo mën a bokk. baax rek moom solo. waaw baax daal moo am Mhm. tey boo amoon message boo xam ne euh, yaa ngi koy jox euh, ñi nga xam ne ñooy jëfe jegeñaalu euh, xalifa yi parce que du ñu yem rek ci lew na ñaseen donte fa lañ ko gis tey donte fa nga ay waxtaanee tey waaye tam yemu fa comme ni ma la gisoon nañ ko ci murid yi gisaat ko aussi tamit Léona Niassène tey en tant kilifa tant que kilifa diine en tant que yow mi xam ne yor nga tamit ay taalibe yoo xam ne macha allah ñu ngi ci sa ginnaaw tey benn message ngay joxe foofu. pour que euh, seen taxawaay ñu jëm ko xoolaat bu baax a baax. waa kilifa buñ koy wax rawatina ñu ne kilifa ci diine. Mhm. ku maanu la war a doon ku jub. Mhm. kuy góorgóorlu. Mhm. moytandiku tooñ. sa moroom moytandiku tooñ sa borom. Euh, góorgóorlu tam ci. fàggulu lew kasbul xalaal. Euh, góorgóorlu ci tam ñu bañ laa jënd ndax nit kenn mu ko jënd nit mhm. def for wala mhm. xat karam naa bani aadama la yàlla wax mhm. ba tax ki gën a tedd li lépp lu yàlla bind na bañ am njëg am njëg mooy ñu ne la na la jox nangam nga saboté diw na la jox nangam nga fenal diw na la jox nangam nga yàqal diw loolu képp koo xam ne yaa ngi koy def rek dañ laa jënd loolu la ñuy ci euh, laaj boobu nga laaj. nga kon xam naa fa la ñuy doxee daal di uh, tëj ji ma jàll ci leneen loo xam ne uh, daañ ko waxtaanee uh, voilà donc boo doon joxe tey sa dernier message foofu lan lay doon. bi mooy comme la ñu wax rek. Mhm. na nit ñi góorgóorlu daal ci jéem a wax. Mhm. ndax làmmeñ. Mhm. خيركم بل لا انت فاهم يعني الدنيا ولسنا ولسنا قرات من ذكر الله فين الوخ بيب وخ بو خامني آه، كي لا وخ بو وخ وخ بو وخ بو باخ لا ريك داي دوجو تي آه، امران بن معروف داي دوجو تي آه، ذكر الله اكبر ندخ نيك اير بو وخي يو ريك جامو نكو yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaaj